ban ba jaar ak noonu yàlla jaaran fil barri wal bahri wa naal dëhra sidaane baneex dunya ku leen fetal daa Bamba jaar ak ñoom jaadu nafsi boobe sëriñ sangi kona fi absi xaataltu fil bari la wax seytaana xaataltu fil bari la wax seytaana هو خير الورى أوتانا عدد الدار لو أحسدانا كبكبه خير الورى أوتانا again. xol bu anga dama xeex ca geer baan rawul ak siwil keroog ku payoor baan mooy waajir fi sabilillahi wa may waajir fi sabilillahi but maa ko yóbbu foofu doon laay

Cheikh Bamba reyal jamam ga taarix baam jay sesi mooy at maa moo di lelub Serigne Bassirou mbég maa nee na la defaloon kalima dari defal ko Ibrahima nee na la defaloon kalima fi dahrihi defal ko Ibrahima ba Yàlla buur ba farataal tabaski ak tam xarit ne may na ko gaayi Mbàkke xidmatil xadimi il maqdoomi fil baari farlu leen ilaa tansiimi la daam wesar ci nguutu yuunu géej ga laay a xam ne bàmbaay géej ga boo ko xamul yëral ne jasaaw sa koor jawaab bi abdilaay loolu moo wóor ne dogon ko nag dem ci walaf nasaraanu te kon bilaay ñëpp dem ni raanu ne dogon ko nag dem ci walaf nasaraanu kon bilaay ñëpp dem niiraan ne da kon dogon ko nag dem gi wolof nasaraan te kon billaay ñëpp dem niiraan ngir baaba doomi soxna yaa ngi kaan daku seebi uri fab nasaraan jaxasoo kàngam yi ak nasaraan defi xaaj ñii di ànd ak naari doomi soxna dal di sampi daara to donga ñaag jigéen ñi mel ni saara sira mu ànd ak saara yandu caawoo ndaw jaxasoo xambaar fet ak caawoo sëriñ si ànd wuur yi faf di daani ñële di tox di foon ñëley doxaani ñële di wañulu ñële i bandaani ñële di tere yaaxi ñële i waañaani góor ñi jigéen ñi jaxasoo di ya gor sabar yëpp jaaxaan kenn amatul xas dunni waji laay foore ba bi jaani laay lislaam di jooy jooy jooy jooy lislaam di jooy lislaam di jooy gàddaay soowu jant fépp mel ni lambaay Cheikh Bamba dal di ñaan barkeelu jiili ni yàlla maay sabiyu kullu jiili xaadimum rasooli fi sodaani xayram mu xarnu bi xani niiraay yàlla dal di siñe jox yonen baaw mu siñe gaaya dal di jiital Bamba dal di waxanteeg Bamba ci saaru Yuusufa mu tiiñu yan ba Bamba ni maay na ma dalub lislaam Bamba ni maay na ma dalub lislaam Bamba ni maay na ma dalub lislaam sëfu leen ma joor leen ma danaa ko jaamu yàlla ni astaxlisu teg li nafsi maa gën a yey ci bi doon ab si keroog la ñaan buur yàlla yoonu géej ga ngir nga liggéeyal mustawa may géej ga ngir boobu wër yaa ngi koy xëccoog sëriñ si kàngam yi ak tubaab yi naa commerce yi addina kalaaxira faf di ko garawoo ku ne ni maa koy jël te naa sama goro ba xaadim moom jaxate naa ko irkan jëngal te jubli wunti wuri jay kon Cheikh Bamba naa hasbiyal ilah حسبي الإله nama te doy loo naa ko maa hindakum yan fadu jàng naa ko billaahi man alal du tax ma jeng jàngal ma saaru xoot ndekon doo jeng billaahi tallaahi xanaa yow xala moo laa tarkanoo ila lazina salamoo xaaloo li yarkan mooy jawaabi xaadi bamba ko tontu wa anta xaadi keroog la bamba giñ bana billaay tey fase naa àddina jublu laay aqbaltu dunya ilayya qablu abitua fasala anil kablu wa bado ani adbarat walam amil likawni hada rasulam wa bado li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abqa minni duma ko bada so joma ko badda na dem sey góor mbooloo ñu ñu xadda bitu la di la daana zaara turra ma la dalay la mul tara قد هدى الأنصار من المهاجرين الأنصار لم يبدل يود النصارى كروك كروك كروك بامتي نفبي نمبا ويتلقى يالله ba dem maayamba keroog la bamba tiiñu fabi yenam ba wettili ko yàlla ba dem maayamba keroog la bamba tiiñu fabi yenam ba wettili ko yàlla ba dem maa yomba keroog la bamba ciñ ci ñu fab yanam ba wisil ko yàlla ba dem maa yomba ngir bëgg ramu jamono yanen ba tuuba tuuba tuuba tuuba tuuba ci man bala xamoo di yamba yan banu yanoon xutbu ya ak labdaal ya ta atun nuñ ko moo ko fab raw gaaya dëngëñ dëngëñ dëngëñ di wéy te tawatul balaaya rotu lawaani la am ci laaya sëriñ si naaqis lañu bambaay kaamil bari yëpp suqu lañu bambaay kaabal si naaqis la ñu bambay kaamil mbar yëpp suq la ñu bambay kaabal man saka fi dalika fal yu jarribi amay jarribi baabi taqarrubi Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Cheikhul Khadim Seexul Xadiim jali seere nañ mësta sajji looloo taxoon taxoon taxoon looloo taxoon looloo taxoon Cheikh Bamba na yaa xaw mi sababu xaybati ramu réew mi sababu xaybati ana laa سافيا لقومي وانا اكون خادما في دومي جموما لبامبا سنجي باري بئس لخالق البرايا الباري fekkoon na taalibe góor ca la borom góor góor gu yàlla yeela ba mu amee juróom yee fa baari di dugg xalwatu ñalil baari saytaane dem ruxale ko nasaraani ñu ne jaar lay fexe fi soodaani su bàbba yéene fay wi kër ga di seet bëlëg doom gis fa teereeg war ga ca moomaat la yàlla xar seen xol ya daf ca ragal seex bamba soppi xel ya ca moomaat la yàlla xeer borom ndar moo sëriñ tuuba ji leen ndar bamba ya bal maam cerno ibra faati mu wuy ji ndar di niru gaynde baati mu boole koog waa ji ñu naa demba kebe ba banaa leen bambalaay fa beebe ba mu demee ndar noon ba yar leetar ba ñu garab wanqaasar mooy tiitar ba danaa folli nu waqaasi de ji boot sànn ca alal ba tasaare tool abduloo kalaame ko borom ndar ak ibra fatim saar na dëkkee dër dër joor toko lam du jul be buurub ñooro mbaa sey xumaalik ba imaamu basi xobdul xaadiri tijaani ma xari samba saajo fi jiraani ca moo maat la tëj tanoor kalaami seexi bawal ngir bëgg a fay lislaami jarbaat ba moo jébbulu woon dem di tuubi dem di jooy mu ko tuubi ruubi Seex Babacar Cergan Njaay Sëriñ Mor Maane Mbay sëriñ Aliou Diouf làmbaay ñi lee ko daane keroog dale na woo fa peccum làmbaay naa leen danaa leen tàggaleel ay laxasaay keroog dale na boole sor ci burumbal ñuy kenn kenoo far ba ngay darbal muy bocc ay goba di feeñal dam di boole door ak yeew amul far jàmm tanaa baleen Seex Bamba mbaa ma rendi murid yëpp ma nga naan ba mandi murid ya naawaa ko Bamba nus nu نسلوي مريد يناكم بابا نسلوي وما ألست يغفر الكي ناي سرين ممر ماني كتن دوبا باني كتن غي كاج دنوي دم توبا فولي لتاي فولي لتاي gisa ndomb ak tànk moo gën a yombuli lox noo lànk noo lànk daggeen i tis daggeen i tis pinc ma daal di jaxasoo murid ya xaacu mbar ma daal di laxasu murid yow ñëw Tuubaa xibaar ko Bamba mu xëy ñaanal leen ko tas naa jal ba dee dem kalaame ko borom a mu naa dangeen mokk bembel ndaw dër ca yooyu at la tettanoor nar meelu boobee la rey musal ma ndey wëndee keroog la gàddaay wuti réew ñooro fekk lam du jul be gaayaleeru mu demee ba weesu doom saalum ñu wër ko mbër ma del faf ni maalum keroog la fekki bamba ngir tuubal ko bamba naa murid yi ngir yëggal ko ca moomaat lañu ko woo mu dem ndar mu sawalante teew ñëw këram jal koy dar mu dellu ndar tubaab ba farmandal ko kaasi mu del si mbaay keroog la wuji yàlla yaa jaban yëpp naa setab maam balla ca moomaat la génne seex ya tuubaa di aaya jël ya di